musée la boo xam ne ni fii ci Agnam Godo ñu ngi koy wax capital Pulaagu international yëpp ko bokk lépp gàlle bi gàlle ñu ngi koy waxee gàlle fulbe bépp pël bépp alpulaar ak foo munta nekk ci àdduna bi rek yaa ngi si bokk fii nag liñ fi bëgg a def alpulaar yi nekk pël yi nekk Mauritanie ci lañ bokk pël yi nekk Mali ci lañ bokk pël yi nekk Niger ci lañ bokk yi nekk Nigéria ci lañ bokk yi nekk Soudan ci lañ bokk ak fu pël nekk ci àdduna bi yëpp ñoo bokk misère ak Tchad Cameroun fu nekk te wax dëgg yàlla feneen lañ ko naroon yóbbu yeneen réew ñoom ñu juboo ci seen biir ñoom Tabitel Pulaagu international waxtaan ci seen biir nañ ko yóbbu senegal fan lañ ko yóbbu Agnam Godo waa population Godo tamit accueil ko dalal leen jël 4 hectares may leen ko boobu ci njëlbeen bu njëkk moo waral tey président de jot boobu information te boobu jamono yooyu képp alpulaar bu nekk rek musée bi bëgg nga ci jël sa dërëm def ko ci ndax ci nga bokk boole ci sa bokk mais président ne wax dëgg yàlla euh, gale boobu mooy kër googu mu tuddee musée boobu te galle fulbe capital pulaagu yëpp bokk ko mu ne moom président Macky bëgg na ko tabax jàppale ko ndax ci la bok président de la république du Sénégal mo njaboté Sénégal yëpp askan bi yëpp mais ci walu originam am ci la bok bëgg na def pour jàppale euh, mbokam wala askanam lolu yakarna naa lu ñu ñuy rafetlu lay doon. logiquement ci plan bi yëpp moins de deux milliards moko wara tabax ndax euh, dina dina am culture boo xam euh, tourisme euh, culturel un peu partout euh, ba finalement def ñu aussi pour ko la ci histoire bi aussi euh, ay borom xam-xam yu mag réfléchir effectivement euh, légitime pour pour donc nous ngi comme président de la république defal na ko Sénégal defal na ko la ligne defal na ko aussi Afrique ak borom xam-xam ñu ngi koy defar mais man je serai pas surpris incha allah ci at yi lu mel ni UNESCO approprié ah, logiquement am nañu réunion mercredi direction générale bu AGETIP moo war a nekk maître d'ouvrage délégué waxtaan ak moom euh, ak euh, góomu ñi nga xam ne ne ñoo ŋànk capital pulaagu ñi nekk Dakar waruñu valider dara te ñoom fekki wuñ ko. boobaa waa Agnam Godo ñu toog ñi maye 4 hectares yi ak euh, ñi nga xam ne ne capital Pulaagu international am ci benn kii boo xam ne ne ñu ngi Dakar ñu taxaw ak ñi nekk au niveau local aussi am ci représentant ñu waxtaan ba pare ñu saytu ko waxtaan valider plan bi ensemble ñu doog koo tas ba àdduna yëpp xam ne ne li président bëgg defal euh, euh, fête des Haalpulaar yi mooy capital Pulaagu international lu am solo la